mbokk yi Serigne Abdoul Aziz Diaw di marabu guérisseur maa la ko wax de man li muy def ci wàllu ñaan sédd boroomam jub lool ci métier mi am xam-xam gëstu ci biir réew mi ak ci biti réew lii ñu naan médecine traditionnelle di fajum wolof lépp nekk ci suñuy gàncax Serigne Abdoul Aziz jaw moo ma ci doy soo bëggee gis xam-xam ba maam ya yoroon tawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw lépp luy fajum plante lépp luy ñaan yàlla lépp lu bàyyi ci kurus dawal nga seeti sëriñ Abdoul Aziz su ñu la laajatee kan moo dàqa ñaan ci réew mi kan moo gën a respecté ay client am kan moo gën bàyyi xel ñi muy ñaanal ñu la ko laajatee nee leen waajaa nga yoof sëriñ Abdoul Aziz jaw ay numéro mi ngi doon di affiché ci barre écran bi liste xaar ak yeneen yi ni mel moom mooy rus na maa xam góor ñi di ko jàpp ci mystique rus na maa xam góor muy am gàcce ci kaw lal leneen li ci des jël leen ay numéro téléphone am sëriñ Abdoul Aziz Diaw moo leen di may seen vidéo yi gannaaw ba 9 jotee ba teg 34 minutes fële ca Popenguine ak li ko wër asalaamaaleykum. jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd geeg bàyyi xel geeg leeru jamono seen émission bu mag bi la di jomme del seeti na ni ngeen ci amee altine ba aljuma 9h30 jàpp 10 ngeen ànd ceeg équipe bu mag bi la di Alaaji Sanjoogu Mbeng ma jigéen ak soaay bu gërëm leen bu baax a baax yéen mbokkee xarit yi nga xam ne ñoo nekk fële ca région yi nekkal fa wal fajri Mamadou Makhtar Sarr moo leen di séddale bu ñu fa jógee jaar ci groupe whatsapp yi nga xam ne ñoom a baax ci enregistrement yeeg partagé yi jàngeen jëf sama gars na la fàtte ñoom ñooy yóbbaale groupe yi taxaw ci turu Walfadjri fële ca GCB nag Baye Assane Messe rek Mouhamed Silak Abdoul Ahad Ndoy Ahmadou Bamba Dieng Bamba fépp Serigne Ibrahima Diop ci Guinée Bissau ñoom ñoo yóbbaale ña taxaw ñene fële ca groupe GCB yi jaa ngeen jëf sama gars gis naa taxawaay bi euh, ñaanal bu baax a baax Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke ca Touba moom yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér Mbacke ndax sa yàgg am na njariñ lool Mbacke Alaaji Sanjogu Mbeng xaritu Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke ca Touba di xarit ci Serigne Daare Alaaji maa ngi lay nuyooti. sooy bu ñu ngi lay fay. ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm. di kontaan ci yow bu baax a baax. jëf Ndiobo. di dem ba Touba Mbacke di nuyu xalifa général des Mourides Serigne Mountakha. Mhm. waaye di nuyu sunu Serigne sunu xarit. waaw muy Serigne Sidi mu Serigne Abdoul Ahad Mbacke. Mhm. di ko ñaanal mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér koy ziar bu wér di nuyu sëñ Xaadim ca kër ga waaye di nuyu sëriñ Abdou Karim Mbàkke Ibrahima Karim ala di nuyu kilifa dina yeewoo ci biir réew mi yëpp lew na ñaseen Medina Baay Tiwaawan Njaasaan Laayeen Cenaba àndu laay di nuyu bu baax waa jaamal di nuyu waa kër maam El Hadj di nuyu it xalif général des Baye Fall di nuyu bu baax a baax euh, sénégalais yëpp yi nga xam ne ñu ngi teewlu di nuyu waa jàngu bi. Mm-hmm. di leen ñaanal jàmm. Mm-hmm. di nuyu bu baax Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di nuyu Serigne Medoune sëy borom tawféex. Mm-hmm. mais ñi ngi nuyu tamit Ibrahima Khalilou Laay mi nekk ci. Uh-huh. Euh, xarala gi ci internet bi moom ak Dieng. ñi ngi leen di nuyu di leen ziar euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw xaangu gisuñu ko. waaw ba ba léegi. vraiment xaaxagu vraiment xaw ma daa xalangu jaare fa mën na ne nërmeelu mais daal xaaxagu daal vraiment temps yi moom mooy lool <laughs> benn waaye boo dama démb ah. ne ma saa yaayu ba jigéen ji waaw ah, vraiment nag démb nag moom ah. bu la bu la rey nga ba saa non sama internet yi démb rey nga leen alaaj <laughs> gars yi mais nag alaaji li nga wax nag c'est vrai de parce que ma jigéen ku ko xamul da nga naan yaayam déggul olof man de loolu laa yaakaar wax dëgg yàlla mais nga jot yaayam mu naan la aare kàlla aare kàlla ñun dañu ngi koy déglu fii ci nga foo yàlla wax dëgg yàlla daal jàppoon naa di daal man yaa ji jigéen jigéen jigéen jox yaa ji ma ne ay man nu may def làkk tubaab xam naa yaa ji déggul wolof waaw kooka macha allah waa saa njóogu waaw ñu ngi ñu ngi fii ci Kajoor de. Kajoor xoolal loolu Kajoor boobu de Kajoor ah, ah foofu tàngul. Eh. déedéet de ah mi ngi fii de xaw nañu amat tàngoor. Ah. walaay taar kàlla. mbaa wópp leen. mbaa wópp leen mbaa yéen a ngi ci eh. la ma jigéen waaw <laughs> ma jigéen saa dooma di. Ah. yaay ma jigéen magu yaayam nga mu ne déedéet man mii maay ndeyam. maay ndeyam di ndalaay taar kaal. Eh, Alaaji est-ce que xam nga ni su kaa faaw mu dalal yaay ma jigéen. non il faut fële ca Népal. parce que yaay ma jigéen vraiment. ma jigéen ni mi ngi waxee Alaaji moom ay R. waaw yàlla xam na ne pour man yaayam. dégg vraiment son xam nga. Hmm. vous loolu il faudra. waaw li muy wax nii yaay ji. billaay. non mais c'est extraordinaire. dina laaj mbaa tàngu leen. <laughs> laaj la tàggu leen kay alaaji yaay ma jigéen yaay ma ah. jigéen faaw ma gis ko moom. faaw ma dem ba Thiès alaaji. ma ne damay dayab. yaay dayab alhamdulilah. aywa da nga foogoon yaay jiitleem la ak yooyu. non maa ngi daa foog da koo yàq ni muy waxee. waaw yéen a ngi son bi nag quand même li xam nga démb ñu bari jaaxle nañ parce que dinañ ne bon ma jigéen vraiment ni muy waxee vraiment mi jigéen famille kii yooyu nga defe woon ni kii. bilaay ñooñu nga xam ne bu ñu jox jox non mais doon préparer pour làkk oh parce que maanaam ne ko waaw. parce que man maman laa démarré sax. ah maman ah, ah, boo xamee woon kon nii ma jigéen la ñuy woo. donc du ma ko wax naan ko mère. parce que jox ma jox ma. ma ne waaw <laughs> Sadio ba def ne fan sa club la bu yaay ma jigéen jox fii <laughs> kooku <laughs> wala yaay ma jigéen di ah, magu yaay mu ne mm, mm. ma maay ndeyam nii de maay ndeyam xam naa ca baa ngay bëgg a dee fa mu toog ca ba xam naa nag waxee bu ko noonu de day weddi. waaye waaye bu bis bu yaay ba jigéen xam. keroog bi ma nee man maay xalifa général kullu kuy animateur ci réew mi xam lu ma wax. Ah. dana hmm, kon yaa xalifa général ñëpp. man ko yow caba yow yow doo yow doo animateur thématique yooyu nag caba. mu ne moom lañ ma xamee. yor-yor yàgg naa ci de. caba caba ñu ngi ko nuyuwaale bu baax a baax caba. yow moom bokkoo ci moom. waaw euh, képp kuy tiim maay bi daal tey def tem. Mm. maay sa xalifa loolu la yàlla dogal waaye yow bokkoo ci. Mm. ayca jaajëfal nañ ko bu baax a baax kon alaaji ma jigéen daal faaw ñu wari ko buñ paree nag parce que nag démb ak tey gisuñu ko waaw waaw incha allah wari ko quoi ci lu mu ne ah, ndax doon na neexal fii daal mhm. voilà il faudra il faudra <laughs> yo eh. yaay ñu ngi nuyu yaay ma jigéen <laughs> waaye nag alaaji yaay ma jigéen yi nag hmm, bari nay moroom hmm, hmm, aw ñun waaw ñun ko dégg la jaaxal yaay waxee nii du ah, ndax da xam ne sooy bu ay seen yaay ne bu waxee moom wax dëgg yàlla ne ay bool bool ñun ñu xam sooy mii bu yaayam waxee xam nga lu mu mën a waxee it amul problème parce que sooy mii ku ko gis rek col koom gi laaf mi joogot joogot <laughs> <laughs> ndeysaan ñu ngi nuyu bi ma dajal tey ci suba gi nee na ma nuyul ma son yi bu ak. Euh, ma jigéen ndeysaan ndeysaan gis nga. Mm-hmm. ma may benn parfum oto quoi. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax mi ngi nekk. Abdillah ay jàmbaar lañ. non billaay. Mm-hmm. moo tax ku leen ku leen jàppale rek réew mi la vraiment bu lay may loo xam ne da ngay xam ne lii mu la may. Mm-hmm. ci seen xol lañ ko jëlee. tibbee ba vraiment. ndeysaan ñu ngi koy ñu ngi kon ñu ngi koy. te Abdillah dañoo bëgg wal fajiri. wallaay. yàlla na yàlla jàppale leen amiin amiin amiin ah. amiin yéen ambulants yi jaa ngeen jëfati lu baax la aywa kon jaajëfal ko baax a baax alaaji tey ñamale gi <clears throat> daan ci uh, ubbeek li nga xam ni daal mooy lu jëm ci wàllu waap uh, criminalisé wàllum viol daf mel ni daal am na ay yokkuteek ay coppite yoo xam daal bi ñu xëyee journal yi uh, kenn ku ci nekk yu ci bare bëri dikk nañ ci nee nañu daal waxatuñu sax di forcer nit wañaar loxoom bay àgg ci kawam waaye lu jëm ci wàllum raay kareese rek maanaam alaaji des ci daan nit ay daani métti waaw maanaam raaya ak yenn wax yeeg nga di ko wax sax koo xam ni euh, jàpp nañu daal mineur la wala sax mën nga cee tëdd juróom ba fukki ati kaso nee ñu yónnee ay audio ay photo yenn message yu xaw a doy waar yi nga di ko yónnee yenn yi sax jàppee nañ ko wàllum viol buñ la ci jàppee juróom ba fukki ati kaso daan ko tëdd waxuma ak nag moom euh, wañaar loxoog tëddeeg yooyu moom boo ko defee moom jàppal ni fukk ba ñaar fukki ati kaso ma ngi lay xaar ak amande xaalis loolu la ñuy dugal ci li nga xam ne mooy loi boobule Walf Quotidien moom na ci président Sall ni muy xëccee gaañi alliés yi daal jàpp nañu daal président est-ce que ñi muy xëcc dana baax parti bu nekk daal ma nga fay xëcc ndax ñu ñëwee mbooloo ñu indaale après dana baax ak yeneen ak yeneen yoo loolu dinañ ci ñëw Walf Grand na ko titre xam naa mën bi ñoom it bëgg nañoo dugal ab recours nañ ko tuddee noonu ci li xam ne moom moo xewoon fële ci assemblée nationale daal ñu bëgg a laalaat li nga xam ne mooy code pénal bi ci wàllum euh, terroriste ci yenn rassemblement yi loolu daal ji mooy nekk euh, ñamale gi incha allah. waaw ah. donc bu njëkk bi yaa ngi wax ci wàllu euh, viol ak affaire yooyu ak yi nga xam ne moom lañuy wax waaw xam nga xale bu xamagul dara moom maanaam euh, koo xam ne majeur gud moom. waaw majeur dafa am ñaari façon ci ñi nga xamante ni bii moom la ñuy wax tubaab. Mm-hmm. ak tamit ñun jullit yi ni ñuy déggee maseur waaw. xam nga tey jii li ñuy wax noonu. Mm. loi bi mën na dal ci koo xam ne maye na doomam ci 16 ans. Mm. sax boo deful ndànk loi bi mën na dal ci sa kaw. Mm. ñu ne la xale bi majeur agut. waaw te fekk na ñoom seen majeur ak euh, majeur bi nga xamante ni moom la diine wax. waaw euh, dafa waroo. foofu yooyu ay sew-sew la yoo xam ni ñu ngi ci biir boo taxawee rek ne way nit ñi ngi jàppalee xale yi ndaw ak tamit li nga xam ne moom la ñuy wax lii wak laa mm-hmm. mais bu ñu xasee ba dugal loolu mu dugg mm-hmm. maanaam kon jàpp naa ni ki nga xamante ni kii majeur gut moom mm-hmm. waroo séq ak moom dara yooyu ay sew-sew la yoo xam ni ñi jàngaloo peut-être mën nañ ci gën a indi ay gindi ak i leeral bu fekkee ne nag dangay jël xale bu doy ndaw moom ngir war koo saay bëgg koo saay-saay mhm. loolu moom mhm. luñ teg ci sa kaw dagan na waaw wala nga koy xirtal di ko envoyé yenn yi pour mhm. euh, yëngal ko pour jéem a ko yàq yooyu yëpp tamit aussi tamit man jàpp naa ni du lu jaadu loo xamante war nañ ko euh, nit war na koy def daal waaw di ko envoyé lu koy xemmem loo góor lu tax muy am en comprendre lépp jubluwaay bi mooy pour nga tëddee ko. waaw tamit wax dëgg fa yàlla. Mhm. Euh, euh, nekkul loo xam yow li nga ci jublu yëpp mbirum saay-saay rek nga ci jublu. Mhm. loolu bokkut ak lële parce que tamit il faut que tamit ñu tenir compte. Mhm. que fii ci réew mi am na ñoo xam ni ñu ngi maye seen doom ci yenn âge yoo xamante ni bii. Euh, yeggut fenn fi. waaw donc li ñoom li ñuy tuddee lool. donc il faut tamit ñu sóoraale loolu. mais El Hadj Raay rek fukki ati kaso Raay waaw raay xam nga tamit euh, nit ñi nañ téye loxo yi rek te am nañ ñoo xamante ne bi tamit wax dëgg fa yàlla waroo leen hmm. waaw fo sans dépend waaye xam nga bu fekkee ne ñaari ñu majeur nag hmm. nangoonte raay dem ba ca biir hmm. leneen am xam nga parensaay tamit dafay am yeneen yuy am euh, galgal gi nag foofu la xam nga dafa am yeneen caxabal yuy am ci biir li ñuy def parce que buñ la ko wanee nii rek pour bi nii rek day mel ni lépp kii na fekk ne am na yeneen ñoo xam ni dinañ ci nekk ay victime ci loi bi te fekk loolu duñu ko comprendre nga tey ji euh, vraiment dañoo nekk ci réew moo xam ni fi mu toll nii ñi ngi jël ay loi di dooleel jigéen ñi rek euh, fàtte góor ñi ah. damay ragal nag ñu dem ba góor ragal jigéen loolu nag bu demee ba góor ñi ragal jigéen ñi musiba naaru la comprendre nga waaw parce que dafa am lu nit ñi di xeex ah, waaw euh, te góor ñi ñi ngi mel ni dañuy xirtal nit ñi pour ñu ragal jigéen waaw di leen daw di leen daw di dégg naa dafa am yoo xam ni mhm. te loolu buñ koy def rek di def yu sew-sew yooyu rek mhm. ñi ngi yóbbu nit ñi ci pour ci leneen leneen loo xam ni bokkut ak yi parce que euh, am na ay mbir yu nekk ci biir yoo xam ni vraiment ay sew-sew la yoo xam ni mhm. day dem yow ba dootoo wóolu kenn parce que jox nañ ndaw si pouvoir boo xam ni bu nee daf maa rek sànq nañ la yow. mais nee sa soxna yàqu na sa soxna soo àndee ak moom te neexu ko. su xëyee bu la accusé viol yooyu ñuy wax yëpp di ko dugal yooyu ñuy dugal yëpp. Ah. boo seetee. Euh, mi ngi xam nga sa soxna. nan nga mën a wax ne neexu ma daf maa violé. violé mën a sa soxna kan. yàlla. Ah. ak luwaa caay caay rek. Ah. xam loolu que tëgg luwaa boobu ab xam naa ni. que tëgg luwaa boobu noonu romb na terroriste. ka dem ba ne sa soxna kii. xam naa moom peut-être euh, ay mbiram xanaa daa doxut. Ah. Euh, ba noppi muy tëgg yenn luwaay parce que am na luwaay yoo xamante ni bii waaw du luwaay nit ku wér doo ko tëgg waaw ba boo wéree dëgg waaw xam nga nag mu ñu naan ànd ak sa soxna foog moom ba tollu fenn waaye bu nee arrêté arrêté xam nga boo wéree kooku ku wéree mooy mën a arrêté waaye ku wér dëgg nga nekk ak su soxna ngeen dem ba tollu fenn fi mu ne la euh, ba arrêté damay tëdd nga daal di tëdd ah. kon ki tëgg luwaa bi wéru ki tëgg luwaa bi xam naa bi mu koy tëgg ay kii yoom doxut waaw mu naan maitrise xam nga am nañu bari na dañ ne dañoo am maîtrise fekk ne dañoo doxut ah. maanaam dañoo paan kon yéen di naan non affaire yi man non man dama maîtrise dama kii non man dinaa toog sax par yenn saay euh, une semaine yoo xam ni damay tëdd ndaw si mais je ne fais rien du tout wéerul ah, fekk wéerul wéru ñu bari wéruñu. Ah. wéruñu wéruñu. nañ ko bàyyi ba ba dimanche ca 23. waaw ñu àggale ko nañ ko bàyyi ba guddi ñu àggale ko. donc loolu la ko ah, <laughs> waaw ayca mi jàpp nga ni lu baax la waaye ay galgal waaw am na ay caxabal yu ne ci biir quoi. ayca waaw euh, président da ngi caxabal lenn ci opposition bi mel ni ku leen bëgg a dugal ci làngam. waaw mais xam nga président moom wax dëgg fa yàlla xam nga ñi ngay wax naan ñi muy xëcc ñuy ñëw. Hmm. mais ñi muy xëcc ñuy ñëw ñooñu. Hmm. Euh, kuy bëgg ki ak kuy bëgg loolu la rek. kuy bëgg waaw maanaam euh, xam nga ngëm-ngëm bu la téewee ci fenn son yi bu waaw xam nga tey jii yaa ngi nii nekk ci diine. waaw nekk jullit. waaw ku la bëgg a yóbbu ci beneen diine. Mhm. di nga xam nga doo dem. waaw li ci li nga ne. Mhm. te nga ko loolu mooy ngëm-ngëm. Mhm. loolu nag. Euh, ku mu newut ci yow ku ne. mën ngaa doon lu ne. voté wuy nag. waaw. xam nga da koy bañ kii nga teg nii lii nga koy tegal waxi démbam da koy déranger. Ah, ah, waaw koy déranger quand day déranger it ñi mu àndal. Hmm. peut saa yi ma déglu saan ñi daan wax sa xalaat. voté wii nag mooy voté wooy. wooy la cay tege mooy wóoyaay yooyu. bala ñu ca egg. na waa senegal xam ne bu fekkente ne wax nañu ko wëy maanaam danañu wax dana ñu ca teg wóoyaay yooyu ndax li muy wóyal. mooy nërmeelal réew mi li muy wëyal mooy nërmeelal valeur yi nga xam ni ci la réew mi sukk waaw xam nga lii de mhm. wax dëgg fa yàlla euh, moo ko wax waaye tey de farandoom yëpp bugguñu mhm. lii nga teg ko waaw xam nga nag man nag boobu vraiment man pare saay nit ki sax man mën naa jekki-jekki def lu ko neex waaw moom la mais yow mi toppoon nit ki waaw ci bi muy wax lii mënuma laa toppaat ci bi ngay waxee neneen allahu akbar léegi nag man loolu mooy sama problème parfois quoi quand même. c'est que maa ngi ànd ak son yi bu. ñu ànd son yi bu ne ma lii la. ne ma kat wax dëgg fa yàlla saa euh, seen plateau bi nga yor ci micro bi daal ci ngay waxee wax ji di génn. Uh-huh. waaw casque bi danga koy takk. waaw waaye mu casque pour nopp la micro pour gémmiñ la. Uh-huh. fi ngay waxee. <laughs> jekki jekki ma xëy son yi bu ne ma <laughs> la seet naa ba seet daal. waaw waaye daal casque bi ci lañ waaw micro bi ci wax ma ne waaw <laughs> wallaay wallaay xam nga loolu. te alaaji ki wax lii ki wax lii fu mu toll daan ñu rey ak ay aaya te jàng euh, na li ma taquluna maa laa tafaluna kabburan maqtan yàlla nee na lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def. te bàkkaar la bu rëy nag. ngay wax manam ngay fen di wax loo xam ni. Ah. doo ko def. yàlla ko wax alxuraan la. Ah. te jàng na loolu alaaji lu tax ngeen di wax te jàng na ko. loolu de moom leer na. waaw macha allah waaw. xam nga yow nag da mën a maq mën a siim. wallaay. <laughs> ah alaaji damay fàttali loolu la def xalif général kul tëb. waaw. <laughs> na caba xam loolu. <laughs> ah na caba loolu. loolu la def xalif général kullu tam. ah alaaji alxuraan day fàttali rek. ah waaw te nag ah. nga nag. alxuraan Fassakir fay na zikra tanfa'ul mu'minina. de xaw ma kat moo doon waaraate nee waa ji day wax alxuraan di tafsir ba ci yàgg rek waa ji jóg ci jàkka ja ko oustaz di ko billahi imam affaire bi demeewul noonu. Ah. wala pour ah, pour moom imam bi moom lay waxal moom la imam bi di waxal. léegi imam di waaraate di wax di wax bu ca mu jóg ni ko bindee imam affaire bi demul noonu de. xam nga pour te dire que ni. Euh, euh, alxuraan bu ko nit ñi di firi rek léeg-léeg nga toog ba ci yàgg ba defe ne waa ji yow lay mm-hmm. toog waa ji di wax di wax di wax di wax ba nga jékki-jékki waa kii xanaa dañ ko wax samay mbir nag. Mm, wallaay dëgg la la quoi. ayca waaw. macha allah moo tax man pare saa gisee conférence yi jigéen ñi tagalu daal di toog. waaw def pose def seen i ongle yooyu. waa ji waaraate ba pare ñu naan kii ay. ah, ah kii des na lu bari. waaw parce que bu yoon léegi am na publique gis na ci publique bi actualité bi mooy la fa xew. waaw xeesal ba. waaw mooy la nga xam ne moo fa xew. na leen wax nag dëkk waaye bu leen waxee dëgg duñ ko jël beneen yoon de. déedéet mukk maa retaali ba tëj ban la. Euh, opposition bi de pare nañ pour clamer waat yi mbir yi ci conseil constitutionnel pour ñu dindiwaat loi bi lan ca defaat muy code pénal bi. waaw ah, opposition bi de. nañ man de jàpp naa ni mbir yooyu daal du loo xamante ni bii ci ay conseil constitutionnel ci ay bureau lañ koy lijjantee. jàppoon nañ bi nag ñoom loo mais nañ def rek li ñu war a def. d'accord xam a àddina moom del def rek à chaque fois li nga xam ne moom nga war a def. d'accord waaw bu ko defee loolu day neexal kii bu ëllëgee nga ne ah lii de defoon naa ba mbir mi xewee def naa lii. Mhm. def naa lii def naa lii mhm. waaw. donc loolu opposition bi li mu def noonu. Mhm. mooy lim nga xam ni moom la war a def lenn ci lim war a def. muy kalaame. waaw parce que il faut nga jaar ci li nga xam ne moom la wax lenn ci lim war a def. Mm-hmm. après nag ñu xool. Mm-hmm. fan la jëma ak li nga xam ne moom la ñuy wax mbir yi. waaw am na solo. ay ca gërëm ko bu baax a baax a baax nuyuwaale nag ajaratu béti mbub waaw suñu xarit boobale ak mm-hmm. ajaratu cabadraame su sukkay mbaay ak mboolem soxna yi nekk ci kër gi yëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu góor yàlla yi Euh, Alaaji soxna si mi ngi lay nii mi ngi ma yónnee message. waaw ah, ah, waaw ñu ngi ci jàmm. waaw waaw moom mm. de moom de moom de bu lay wax ici. yooyu nga wax man maa ngi doon jënd ici ci boutique ba de ici. <laughs> <laughs> bi dañ ko war a porter plainte ici <laughs> ici de laa yónnee ca boutique ba. ñu ngi koy baax soxna Maram Fall. ma ca Touba. Eh. waaw moom eh, way moo nekkoon sama yaay daara di maam Dioro Ndioba Diop ma nga ca jannatul Mawa. Hmm. Eh, Diop yàgg fi lool te ànd ak wér ba fekkee njariñu njaboot gi incha allah. ay ci alaaji waa de baayam moo amoon ay tool. Hmm. magu baayam ñëw jël loxoom teg ca tool ya. Assane daal woo na ko Assane. maanaam mbir mi nan la demee. waaw sama maam. sama maam yow. waaw dafa bàyyi ay tool. waaw. léegi sama papa ak sama mag papa. waaw ñoom sama sama magu papa kese moo koy béy mais sama papa du ko béy. sa papa mu amut fu mu béy. daanakaay am na fu mu béy mais da koy ñaani feneen. dafa dem ñu dogal ko feneen. non non da koy ñaan ñeneen te te sama magu papa bi mu ngi ak tool yi. ah te tool yi baayam sa sa baay baayam ay tool. wala wala voilà noonu la demee. Mhm. ah loolu de moom pexe loolu de moom moom doy na waar moom maanaam daal wax dëgg yàlla sa magu pap boobu mu waroon na koo jox ci tool yi mu bay waaw voilà ñoom ñaar te sama papa moomu hmm. am na rakk boo xam ne mook sama papa Hmm. ah moo moo sama magu papa boobu jël tool yi. Hmm. kooku mu ngi ciy béy rakk boobu mu ngi ciy béy. xanaa kon sa baay da koy tooñ. ah sa baay xanaa da koy tooñ wala nu mu demee noonu. non non sama baay kay tooñu ko li naan branloo rek. Sénégal moom yaa ma gën a xam ni mu deme moom sa baay ñoo dëkk wala dëkkuñu. non non dëkkatuñ instant yi kay taqalikoo nañ. taqalikoo nañ. waaw mais sama papa ngi dëkk seen wet nag. seen wet la dëkk daal waaye mun ta bay si tool yi. waaw man dabe ci tool yi vraiment moom. yow léegi yow jéemoo saa dem waxtaan ci wala jéemoo ci dara. non man kay bëggoon naa cee jéem dara mais sama papa daani ma bàyyil rek fee mooy gën a tay bi fele mooy gën quoi yow mal xëyam. ah yow mal xëyam daa sori de léegi sa papa moom am na yor na ak jur wala. non non yorul jur mais yor na fas nag. ah yor na fas. yor na fas bi muy béyee. amul ay nag ak yooyu wala. non non amul ay nag ak yooyu. ñaata non moom ñaar la yor. yow am nga soxna. non non man amaguma soxna man 17 ans laa am. sa papa jooju nga xam moo aaki moo tool yëpp nanguwut a jox kenn bay ci moom ñaata soxna la yor. voilà moo aaki moo tool yëpp. ñaata soxna la yor moom. Mm, kan ci sam papa boobu. sa papa bi yor tool yi waaw. kooku benn jabar la yore. am na ay doom yu mag. waa am na doom yu mag mais benn doom bu góor la am nag policier. Eh. <laughs> waaw. ii kon kay yow ngeen xool ni ngeen def rek. wallaahi asim. waaye yàlla bari sutura léegi boo digloo saa wax naka ngeen war a def si tool yooyu. waaw amul benn problème. incha allah kontaan nañ trop. ok merci beaucoup. jaajal ko bu baax moom Baye Assane Mesere euh, am na nag baat bu mu wax ci biir yi yenn saa yi mooy tax nit ñi di taayal muy yowmal xiyaam dafa sori. pour hmm. euh, pourtant lu jege jege la jege yi Euh, ndax nit ñu baree bari nag dañoo foog ni ëllëg daal moom dafa sori wala ëllëg ëllëgu nangam fekk nag wax dëgg yàlla am na yàlla nu muy fayulee nit dangay xam ne alaaji yow man xëyaam lu jegee jege la mm-hmm. euh, kantaa nag ba mu des ci suuf alaaji ñu bari dañoo foog ni xëccoo suuf ci Dakar rek la am gis nga alaaji lii problème bi fi waaj indi mm-hmm. yàlla xam ne ne mi ngi toj àll bi mm-hmm. xëccoo suuf tool bi sama maama ko moom sama bàyyi ko moom tool bi nangam am na ñu ciy xëccoo ba tuurante ay deret am ci ñi ci àll bi di ma dégg xam nañ ci dara digg bi maa ko moom fii leen digaloo alaaj mbaa xam ne am na sax ñoo xam ne waxuma la sax suuf mais ay digo xam nga dig waaw dig mooy fu ñuy yam ku ah, wala ah, alaaj yow mi macha allah dig sax am nañu koy xëccoo dangaa passé saw dig sam fii sama dig la dangaa mm. jël ci sama tool wa moomoo li ba xeex ay jaasi am mais kii moom li mu def lu lu ñaaw ñaaw la xaw ma nag lu ne ci histoire bi dëgg dëgg dëgg mais jàpp ma ni daal seen maam war na fee bàyyi suuf mu aaki moo suuf si moom di jox ñuy bay génne baayam ci biti loolu daal alaaji lu ñaaw la. waa xam nga loolu yëpp tamit li mu war rek mooy ñi nga xamante ne bi ñoom la ñu teg ci réew mi parce que ku war nañ mën a xam li nga am ak fi nga moom. mais ngay gis gox yoo xamante ne bi na ko maam bàyyee woon démb ak bërki démb ba léegi noonu lañ ko bàyyee. kenn xamut fan nga yam loolu mooy digg yi nga xamante ni bii moom ngay wax noonu. loolu nag bu fekkonte ni bii nag buur ñëw na ndawal buur <laughs> maanaam ñëw na. koo tuddee buur maanaam li ñu xam ni moom la ñuy wax ndawal buur. ah d'accord maanaam yoon état bi ñëw na. daa dee tracé mais bu ñëw day fekk foofu am kayit alaaji tool yu bari amul dañ leen ko war a kiiwal ah d'accord sony loolu yëpp parce que loolu yëpp lañ war a def que am ñoo xam ne bii tamit xam nañ ni fi ñu moom waaw euh, depuis des années ñoo fa waaw donc ñooñu war nañ leen a mën a daganalal ay kayit ñu am ko ku ne xam li nga am ak li nga moom parce que loolu sax mooy permettre baykat bi mm-hmm. mën a jël suuf soosu li mu am yóbbu ko banque mm-hmm. pour mën a ah. lii ñuy wax naan ay problème mu jiwoog lii ak yi jóge fi parce que dina ko mën a dem garanti mhm. wane ni am na suuf mhm. soo xamante ni si kat kii na mhm. bu boobaa euh, mën nañu gën a mbay mi mën na gën a lool que ni mbay ah, nga xam ne nga yóbbu suuf si nga am mais dañ leen a seetaan ñu financé la nga bay mën nga yóbbu suuf si nga am wane say këyit te joxe ko d'accord euh, bon bu ko defee baykat nga ñu lebal la. d'accord waaw loolu ngay ngay bay ngay liggéey. waaw donc yooyu il loolu mooy wane ni yow baykat nga bu nii rek. Mhm. Euh, vraiment doxut. doxut quand même. loolu de moom dëgg la loolu am na solo. alaaji noonu la kon xam naa ni waxtu benn minute ca des. te alxayri mu ngi nii taxaw alxayri kat. sërif baa ngi nii toog. Eh, la ñun moom. dëgg fa yàlla sunu sunuy maam ci maamam lañ toog. nañ nañ nañ ko bàyyee micro bi rek. waaw waaw <laughs> Serigne. waaw xam boobu wax na ko mais nag dañ koo dënk suñu équipe. waaw moom ñaata mais yow foo <laughs> foo nga wax ci boobu xam nga boobu jomme alaaji daa nangu équipe bi ci Gomis waaw boobu ba léegi mënta dem ele mënta dem match ma ndax Gomis a ko xool que yow ci Gomis nga bokkoon nga dem bokk ànd ak sa ak ah. supporter ak li ñu mobilisation yëpp c'est que Gomis ah. am na lu muy suy ci bureau man xaw ma lan la mais am na lu mu fay wis <laughs> moo la muy sotti <laughs> day tappale aji kon alaaji ba su ak jàmm mi ngi noonu kon bu ñu ne diisee rek El Khayri Aidara Serif bile ci kër gi dina leen jox euh, brève juste après ngeen am DJ Melo incha allah mbokk yi 75 ngeen di ànd ak ñun 449 23 23 asalaamaaleykum. reerul du sa ngóoro xamul fu muy taxaw jël mu moomul dëgg jub lang fu ko neex mu aw gëm lu mu doonul dëkk jub lang lekk na jëw bi jomba ñaaw